بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi toll ci jeexital suura almaida ci kàttanu boroom bi ñoo ngi jël tey aaye 116 117 118 119 120 ñeenti aaye yoo xam ne ci la ñuy jeexalee saar bi borom bi diñ ci jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy tawbiixu nasaara fi arsaati alqiyaama ala taalihi isa wa walidati alayhim assalaam danañ jàng tey ci aay yi nekk sunu kanam yeddeel gu yàlla yedd nasaraan yi kañ ca barab bu ñuy wax bés pénc fi arsaati alqiyaama ci place bu yaatu boobu tudd yowmal qiyaama fala yàlla subhanahu wa taala yedde nasaraan yi lu tax ci def gi ñu def isa muy yàlla ak way juram bu jigéen ñoom ñaar ñu jàpp leen def leen ay yàlla ña ko def yàlla di leen yedd kon loolu ñun lan lañ ci dégg mooy nun ñi ay jullit bu yàlla yeddee ay nit yu jël seeni ñoñ def leen ay yàlla kon ñun waxi noppi kon yàlla kenn la moom sunu boroom amul soxna amul doom amul dendandoo moom kenn kott la jalla jalaaluhu waruñu ko dendale kenn wala lenn jullit bu bëgg pas-pasam wir ci loolu lay gëm mooy def yàlla kenn ndax ña utal yàlla moroom utal ko ay ndend jël seeni yonent ak ñu mel ni ñoom daf leen ni yàlla yàlla daf leen a yedd ñaareel bi mooy baraatu isa alayhi salaam min mushriki nasara wa ahlil kitaab yonent boobu di isa deñ gu mu deñ ci nit ñi nga xam ne ñoo ko doon bëgg a jay di ko def yàlla deñ gu mu deñ ci ñoom su fekkee isa ak garaat yi mu takk ndomba tànk yi ko yàlla defal ndomba tànk yu foor yu rëy yu màgg ñi ko yàlla yónni woon di ko jël di ko jay di ko jay di ko jay ba bëgg ko dendaleeg yàlla moom isa mu lànk ne leen duma yàlla denc ñoom set wicc kon keneen kuy jullit war ngaa bàyyi loolu xel waaye tey xam ngeen ne jamono bu nu nekk mooy jamono jayaate ku nekk jay sa kilifa gën a lantey kilifa waaw ñi seeni kilifa dañuy naaw ñi seeni kilifa dañuy bënn asamaan ñi seeni kilifa dañoo naan géej gi ñi seeni kilifa dañuy dox ci ngelaw li ku nekk da ngay jay sa kilifa isaa moom bi ko nasaraan yi jayee bu bugg koo jox martaba yàlla dafa bañ dafa lànk ne bu ma kenn yóbbu foofu duma yàlla waaw dafa denc ci ñoom mu leer ci aaya yu ñëw ci suñ kanam wala ay aaya yàlla wax ci alquran fa lamma axassa isa minhum alkufra qaala man ansaari ila allah ba mu yégee ne ñi ay yéeféer lañ jaar nañ ci yoonu kufru daf leen fa baax ñetteel mooy taazib almushrikin wa tancim almuwahidin daneen jàng tey képp kuy bokkaale nga dund ko ba dee jéggluwoo yàlla bokkaale boobu yàlla dina la mbugal ëllëg kenn mënulaa musal soo deewaalee bokkaale amul kenn ëllëg yowmal qiyaam kuy taxaw ci kanamu yàlla ne day xettali ku doon bokkaale kenn mënu ci dërëm foo jaar yàlla mbugal la waaye amul kenn koo xam ne mën nga faa toroxal wala nga doyadil fa ku doon wiital yàlla tabaraka wa taala ku amoon tawxid kooku la yàlla di defal xéewal kooku la yàlla di teral kooku la yàlla di wàcc ay daraja yu kawe kooku la yàlla di defal taraanga c'est parce que dafa kenn naloon yàlla kon ku bokkaale ëllëg yàlla dina la duma ku kennal yàlla yàlla dina la teral léeg-léeg boo waxee loolu nit ñi am ñu jàpp ne ki day wax rek ñun danañ bokkaale te ëllëg yàlla du mun ci ñun dara loolu yaa koy wax rek waaye lu gaaw balaa àllaaxira mun la jagatee ci kër gi dugal la ci morgue bi futti la sang la sang la teg la ci kanamu jàkk ji jullee la ñu yenu la dugal la ci bàmmeel bi rek mbir mi leer jaru sax ñu egg àllaaxira moo tax yàggul moo tax yàlla yàkkamtiwul kon dañu war a góorgóorlu di kennal yàlla ñu am tawxiid ndax ku am tawxiid yàlla dina la taral dina la defal xéewal waaye ku rep ba dugg ci bokkaale di bokkaale yàlla di ko dendale ak ay mbindeef wala loolu ñu naan jamaadaat lu wow ne koŋ nga koy dendaleek yàlla ëllëg yàlla dina la duma ñeenteel bu nuy jël tey mooy fadilatu sidqi wa annahu naafiun fi dunya wal axira ngëneelu dëggu dëggu dëggu li manqué tey dëggu nit ñu dëggu moo manqué ci kaw suuf ngëneel gi nekk ci dëggu jëriñ yi muy jëriñ àddina ak jëriñ gi muy jëriñ alaxira lool danañ ko jàng tey ñëw na ci xadis sayduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ne wa alaykum bisidqi fa innahu yad'u ila albirri wa anna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا salawaatullahi wa salaamu alayhi nee na maa ngi leen di dénk ngeen dëggu waaye dëggu leen waaye nit na dëggu lay rey sax nekkal ci dëgg bu ragal bokk na nit ñi tey lu ñuy tiitalee nit ñi mooy dañ lay rey dañ lay rey ñoom buñ la rey ba pare est-ce que ñoom dañuy dund sa ginnaaw ah su fekkoon ne bu ngeen reyee nit ki moom après yéen du ngeen dee ngeen mën a dund ngeen mën a zibilé waaye après bu ngeen ko reyee quelque temps yàlla da leen di rey ngeen fekki ka ngeen reyoon yàlla waxoon na sayyidina muhammad innaka mayyit wa innahum mayyitun yàlla nee na suuf si defaluma fi nit ku fi sax beneen bi mooy jàpp nañ la buñ la reyee yow da ngaa perte xanaa xamu leen yenn saa yi ñu rey nit mu am taranga daa ngi leen yaasin waa ji ba muy waaraate ñu rey ko di wax dëgg yàlla gi ñu rey ko gaa ya ko rey di zibilé dafa ne perte na fekk waajaa ngi biir aljanna moom ndeysaan di zibilé moom naan yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin aka neexoon gaa yi xam dañoo yaakaar ne perte na fekk man maa ngi fii ndeysaan di xéewlu voilà kon yooyu ay mbir la yoo xam ne bu yeboon nit ñi ñu teg ko ci suuf yonent bi nee na maa ngi leen di dénku ngeen dëggu dëggu leen ndax dëgg day day yóbbu nit ci loolu ñu naan al bir ah dëggu day tax nga baax te diine kat mooy bir ah laaj lañ yonent bi mat diin laaj lañ yonent bi lan mooy diine mu ne mooy mbaax al bir loolu nit ñi dafa ñoo war a fexe seen jikko yu baax mu ne wa anna al birr yahdi ila aljanna mbaax day yóbbu nit aljanna mbaax day yóbbu nit aljanna mu ne nit du dañ di dëggu taqoo ko nekk ci guddeeg bëccëg ba ñu bind ko ci yàlla ci ñu dëggu ñi loolu rek doy na hatta yuktab inda allah siddiqan mu ne maa ngi leen di moytandikuloo safaan bi safaanu dëgg ñëpp xam nañ ko juróomeel mooy suaalu gayrullahi shay'an darbun min albaatil wa shirk tàllal yàlla kudul yàlla nga tàllal ko say loxo di toroxlu ci moom loolu neen la te bokkaale la ab jullit du toroxlu ci kanamu mbindeef comme moom kenn dong ngay tàllal loxo kenn dong ngay sëgg sa bopp bi kenn dong ngay rukkoo sa tànk yi kenn dong ngay sujootal ci suuf mu nekk ndam mu nekk muy yàlla ñu yëkkati la ci ay daraja fay la ci tiyaaba au lieu que mu nekk gàcce waaye buur boo fëgg buntam de sujoot ci suuf ne nguruf ni ngay def booy julli su boobaa nga ñàkk personnalité koo ko defal rek nga ñàkk personnalité ku dul yàlla waaw yàlla dong ngay teg sa jë teg sa bakkan teg sa ñaari loxo teg sa ñaari cati óom bëti óom teg sa ñaari cati baaraam muy garaat bu rëy rëy rëy rëy rëy nga am tiyaaba bu rëy amma ku dul yàlla toroxtaange lay doon ci yow kon mbokki jullit yi juróomi mbir yooyu ci tënk bu gaaw moom mooy sunu dars tey noo ngi ñaan sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu yal na yàlla dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هل أنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم وردوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما, وما فيهن وهو على كل شيء قدير سن برمنا جل جلاله وعز كماله يقول تعالى لرسولنا محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wazkur li qawmik sunu boroom boroom màgg gi boroom asamaan ak suuf moo ngi wax ak yonentam alayhi salaatu wasalaam ne ko yow yonent bi fàttalil say nit is qaala allah taala fàttalikul fàttalil say nit bis bu ma dajalee nit ña ma laaj Isa moom kenn bu ma dajalee yonent yi yàlla di leen laaj lan ngeen di tontu woon mu laaj Isa kenn moom kenn jullum ngir gàcceel nasaraan yi bokkaale gi ñu doon bokkaale yàlla yàlla ne yaa isa ibn maryam e yow isa doomu maryam waaw yow yow isa a anta qulta linnaas ittaxisuni wa ummi ilahayn ndax yow yaay ki waxoon nit ñi yaay ki leen digaloon joxoon leen ndigal a anta qulta ndax yaa waxoon linnaas nit ña ña la yàlla yónni woon ittaxisuni jàppe leen ma man mii wa ummi ak sama yaay ilahay ni ngeen def ñu ñaari yàlla boo ci boolee yàlla mu nekk ñaata ñett jàppe leen ma man yàlla sama yaay yàlla yàlla yàlla ndax yaay ki ko waxoon nit ñi waaw gis ngeen mbokk yi aaya bi doomu tey doyoon na tafsir lu tax tey ci àddina bi ñu nekk ñaata nit ngeen gis ñuy wax wax yoo xam ne jaatuwul ñu koy wax seen kilifa seen kilifa ne pàtt noppi yaay yàlla yaay borom jaam yi yaay borom na am mu am yaay borom kun fa yakun yaay borom nangam yaa yaa niinal ceeb bi ah yaa sotti ndox mi loolu te ki nga koy wax xam nga ne def ko moo tax gis nga képp kuy njiit lépp loo wax nit ñi ëllëg yàlla dina la ko laaj kan la yàlla di laaj kii mooy kan kan mooy isa bokk na ci daraja yi mu takk rek ruux la bu bàyyeekoo ci yàlla jàng ngeen pouvoir am fi tafsir yi passé lu mu doon def di dekkil ay néew di faj ñu feebar di jël ci suuf si di dànk di ko sànni muy naaw di nekk ay picc ah lu mu wax rek mu am terewul yàlla mu ngi doon wax ne bi isni ci sama ndigal la ko doon def xoolal te yàlla interpellé ko taxaw loo ko ne ko ndax yow yaa waxoon nit ñi yaag sa yaay ay yàlla ngeen kon tey ñi naan man yàlla laa gis naa yàlla yow yàlla nga ñooñu ëllëg xanaa xalaatuñu taxaw ci kanamu yàlla bu yàlla woowee ku toll ne isa ngeen yaakaar ne bàyyi nag dina bàyyi keneen isa ulul azmi min ar-rusul ci juróomi yonent yi gën a màgg ci yonent yàlla yónni isa ci la bokk bal sax keroog ba yonent yàlla muhammad alayhi salaam di dem kaw asamaan di dem ca yàlla romb na isa waaw ku mel noonu daraja yi mu am dëgg-dëgg waaye wax jiñ ko waxloo moo jaawul moo rëy ba yàlla ne ko déedéet doo demee noonu kaay affaire bi foog ñu leeral ko wax jiñ la wax dafa rëy ndax ci sama arche bi lañ la bëgg a toogloo dafa waa Sénégal dañoo amoon ay dañoo amoon président boo xam ne ku xool photo yam rek mu folli la wala amoon ngeen ko wala ku mu folli rek bu ñu ne lu tax ñu folli ko ñu ne moom de dafa xool photo bi président di toog ah pour photo bi lay xool waxuñu sax da cee bëgg a toog gars yi waxuñu woon loolu de dañu ne da cee bëgg a toog rek waa ji wàcce ko léegi nag kon moom ki bàyyi ñëpp nga dem ars nga bëgg a def nit yàlla kon yow loo def kon mbokk jullit yi nañ delloo si xel yi yu bañ a farfarloo waaye yooyu yëpp farfarloo koy waral suñuy farfarloo ci ay njiit di farfarloo ci ay kilifa di farfarloo ci ay yoon li muy jur mooy dañuy wàcc ndax yow Isa yaay ki waxoon nit ña jàppale leen ma man ak sama yaay ngeen def ma ngeen def ñu ay yàlla min dunillah ngeen bàyyi yàlla gis ngeen jàppee leen ñu yàlla ngeen bàyyi yàlla min dunillah ngeen bàyyi yàlla wala wax ji ni mu graawee wax ji dafa rëy ba isa attanu ko moo tax mu ne qaala mu ne subhanak allahu akbar dafa dégg lu dafa dégg lu lu lu ko tëxloo dafa dégg lu yëngal tempa bi moo tax mu delloo yàlla mbir mi mu ne ko subhanak allahu akbar yow yàlla yaa sell allahu akbar wallahi alazim isa dafa wax loolu lu tax munazihan rabbahu taala muqaddisan setal yàlla màggal ko moo tax mu ne subhanak yow yàlla yaa sell ay yàlla loolu man nu ma koy waxee subhanak baat boobu dafa sell mooy ku bëgg a sellal yàlla baat boobu ngay utiliser mu ne maa yakunu lii an aqula waaye yellul ci man may wax loolu waaw waaw yellul maa yakunu lii yellul ci man an aqula may wax maa laysa lii bi xaq may wax loo xam ne du dëgg allahu akbar yellul ci man may wax loo xam ne amut ndax man xam naa maay kan waaw ndax man ab yonent laa ndax man ab jaam laa ndax man yow yaay sama boroom yow yàlla di ma bind tànn ma yónni ma ba pare ma dem di la coup d'état naan nañ ma def man ak samay way jur man ak sama way jur ñu nekk ay yàlla loolu nu ma koy waxee maa yakunu lii an aqula ma laysa lii bi xaq naka la yelle ci man may wax lu dul dëgg ci yàlla yow yàlla in kuntu qultuhu su fekkee maa ko wax faqad alimta xam nga allahu akbar mbokk yi léeg-léeg ñu wax ne nit ñi li leen alak mooy bàyyi alxuraan nit ñi bu ñu doon jàng alxuraan bu dégg bëccëg seen bët yi di ci tegu ñu comprendre dëgg-dëgg kon duñ dugg ci yenn crime yi kon doo gis mu ko taxaw gis kilifaam di ko yuuxu daan ah yàlla ngoog ah déedéet parce que dafa jàng day xam xoolal kii taxaw ci kanamu yàlla te yàlla ba mu koy woo moom kenn cundung la yàlla taxawal ci kanamam di ko audité li ko yàlla yónni woon lan la ci def kon tey su fekkoon ne Isaa mii moo ko wax fu mu jëm lan la ko yàlla di def waaye dégg ngeen tontu yi bu tontu lii nii tontu yi bu nit defoon bu nit deful woon dara sax taxaw ci kanamu procureur ñu lay laaj da ngay nekk à l'aise mën a doo tiit moo tax ku deful doo jax-jax yi waaw moo tax baat yi mu génnee baat yi dafa dafa mag baat yi daa ànd yow yàlla yàllul ci man may wax loo xam ne du dëgg waaye yow yàlla su ma ko waxee xam nga in kuntu qultuhu su fekkee maa ko wax wallahi faqad alimta xam nga lu tax yaa Isa wax loolu laaj la lu tax Isa wax loolu mbokk yi ah lu tax Isa ne yàlla su ma ko waxee xam nga lu tax c'est parce que xam na ne yàlla buusewul maître c'est parce que xam na ne mission fa mu tàmbalee ba fa mu yem xam na ne dara réeru ci yàlla xam na bu baax bien parce que xam na ne yàlla daf koy laaj waaye yàlla bi koy laaj moo ko gën a xam lim koy laaj moo tax mu ne ko su ma ko waxee xam nga qad alimta yow yàlla sax yemuma foofu waaye taalamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsik yow xa yàlla xam nga li nekk ci man waaye yow xawma li nekk ci yow li nekk ci man yëpp xam nga ko lu tax parce que yow yaa ko ci def mission bi yëpp xam nga c'est parce que yaa ma yónni yaa ma jox téere yaa ma orienté kon yow yàlla xam nga xam nga li nekk ci man ndax yaa ko ci def waaw kalpe bi nga jël dugal ci sa xaalis wala coffre-fort bi nga denc wala doom yi nga am wala sox yi soxna yi nga am xam nga leen waaye dox ci mbedd mi ñu ne la yow ñaata soxna nga am benn jigéen benn waaye da koo takk mu dem diir yàggul de li ma leen di wax ni ci weer yii la mu dem diir mu dégg ñu ne ko yow waa ji ah est-ce que xam nga fu mu la dugal xam nga ñaata jabar la waa ji am mu ne déedéet ñu ne laaj ko ko mu ne mu woo waa ji téléphone ne ko yow man ban position laa nekk waa ji ne ko position lan mu ne ko awala wala ñaareel la wala ñetteel la wala ñeenteel la waaw ñu ne ko loolu amul solo li am solo mooy jabar kese nga jabar nga mu ne ko non il faut nga wax ma ko waa ji coupé téléphone am ne ko damaa am ay gan mu la ko wax gars yi di woon ndaw si ñi naan ko cinquante ñi naan ko soixante ñi naan ko quatre-vingt mu ne ñi ko wax quatre-vingt ñoo ëpp 80 jabar nu ko nit di amee mbokk yi 80 jabar fu ko nit jëmee yal nañu yàlla def yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko Isaa ba ko yàlla laajee da ko ne yow yàlla xam nga li ci man taalamu xam nga maa fi nafsi li nekk ci man wala alamu xamuma allahu akbar maa fi nafsik li nekk ci yow innaka yow nag anta yow mii di yàlla tawkiid allaamul xuyub yaa xam kumpa de yow rek yaa xam kumpa kenn xamul waaw innaka anta allaamul xuyub yow yàlla yaa xam li faat yaa xam kumpa li nit ñi denc yow dong yaa ko xam kenn xamu ko ku dul yow xam nga ne kii ci tawxid dëgg la tontu yàlla moo tax du am problème waaw ba pare yemu ci de su yemoon fii rek sax tontu bi baax na ndax wax dëgg wax na yàlla yow yàlla su ma ko waxee xam nga su ma ko waxul xam nga xam nga li ci man man xaw ma li fi nekk li nekk ci yow parce que li nekk ci man yow yàlla yaa ko fi def waaye yemu ci de mu ne maa qultu lahum waxuma leen illa lu dul ma amartani bihi la nga ma digaloon dong laa wax yokkuma ci virgule wàññiwuma allahu akbar ma qultu lahum waxuma leen illa lu dul ma la nga xam ne amartani bi moom nga ma digaloon yokkuma wàññiwuma li nga ma waxoon laa wax fa nga ma yem loo woon laa yem fi nga ma ne woon bu fa jege jegewuma ko waaw fii nag sawaay xoolal kii dañ ko yónni jox ko téere yónni ko mu wax lii kon ku ñu yónniwul joxuñu la téere yow moom ëllëg yow na yow na dama leen laaj yéen ñi laa ko laaj ma ne kii dañ koo yónni jox ko téere ba pare interpellé ko ca lañ ko yónni woon mu tontu lii kon ku ñu yónniwul joxuñu la téere nag nga ñëw def fi ay dégâts kon yow ëllëg boo taxawee ci kanam yàlla foo jëm ku nekk jànge ko sa xel ku nekk jàngaatal aaya yi kii dañ ko yónni terewul tey ñu ngi ko taxaw di ko laaj moom kenn naa cundum déggu leen yàlla ne ba ma ko wooyee damaa woo nit ñi wala damaa woo yaayam wala damaa woo keneen déedéet yàlla nee na moom laa laaj te moo taxaw di tont ana ku koy wallu hmm? fii ndeysaan benn waay dañ ko woo dañ ko woo dig waa ndeg ay nit ñu dox ba yegg ñu wàcc ci oto yi gars yi ñoo jël convocation bi ne ko bismillah dugal ñeneen ñi bëgg a dugg ñu ne leen ku leen woo yéen parce que yéen da ngeen jot convocation ne ci ngeen bokk gars yi ne déedéet mu leen leen reculer leen gars yi wane ginnaaw te loolu dig dong la ndakaaru gii la allahu akbar te benn nit kese la sa moroom amaana sax ah comme ñee dañoo bari mënoon nañ koo song foofu moom kenn dóor ko day ko yëkkati ba ci kaw ndulli ko ci suuf waaye bu mu ne nee yéen est ce que dañ leen a woo dañ leen jox convocation gars yi ne déedéet mu ne reculer leen gars yi wane ginnaaw waaw kon kanamu yàlla nag ëllëg ku yàlla woo ana kan ngay àndal kan moo lay solal robu avocat ci kanamu yàlla yàlla laaj yi mu lay laaj kan mooy tontu. loolu mbokk yi kenn ku nekk ci ñun tontu ko sa bopp sunu borom nee na jalla jalaaluhu mu ne maa qultu lahum waxuma leen illaa lu dul maa amartani bi lang ma digaloon li nga ma digaloon dinaa ci tënk tuuti rek man yàlla ma wax la ko mooy lan mooy anni abudullaha jaamu leen yàlla rabbi di sama boroom wa rabbakum di seen boroom kon dugut jeex na jaamu leen yàlla laa waxoon jaamu leen yàlla fi nag lu gaa yi wax dégg naa fan yi ci rajo bi benn waaye bu tabax jàkka am kilifa gu ñëw ne ko tojal jàkka bi fi kenn du fi julli ñun dañ ñoo mbaay yàlla tojal tojal allahu akbar yàlla digle nañ jaamu ñun ñuy digle di toji jàkk dégg naa ndar toj nañ fa ñaari jàkk ndax projet xaw ma projet ñu ne projet bi dafa war a jël fii quoi kon foog ñu écraser jàkka yi ñen dafa ne dëkk buy toji jàkk dëkk boobu danañ dem xanaa xam leen jàkka yi ñooy baaxal nit ñi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi mu ne cëpp Médine lan la njëkk a def tabax jàkk kaw suuf sii balaa doomu aadama di fi ne cëpp yàlla jàkk la njëkk a defar ba pare doog a wàcce doomu aadama yi jàkk mooy tax nit ñi baax de Sénégalais yi dara alagu leen lu dul jàkka yi ñoo deful seen liggéey billaahi wallaahi taala dëkk bu jàkka fanaanu dëkk boobu kenn du fa baax kenn du fa jag dëkk buñ dul nodd dëkk buñ dul julli dëkk boobu baaxul dëkk boobu du dem jamais jàkka mooy tax dëkk bi baax de mooy tax nit ñi baax malaaka yi ñoo ne cëpp ci suuf si tabax jàkk doomu aadama bi mu ne cëpp fekk fi jàkk moo tax yonent yépp suleymaan ba mu ne cëpp baytul maqdis lu mu tabax jàkk seydina muhammad ba mu ne cëpp ma madine lu mu tabax jàkk ñun ñi màbbi jàkk baax na ani abdullah jaamu leen yàlla loolu la isa wax de rabbi waaw fii est ce que wax dafa wax sama papa ah lu mu wax man de leen ma waxoon laa wax mooy lan nanu jaamu yàlla sama boroom wa rabbukum ak seen boroom mu ne wa ma kuntu alayhim shahidan yow yow man nekkuma woon ci ñoom koo xam ne maa leen doon garde man nekkuma woon foofu di leen garde de li nga ma waxoon laa wax dem sama yoon tooguma woon foofu di garde kan waaw waaw wa ma kuntu alayhim shahida mu ne maa dumtu fihim waaw wa kuntu loolu la wa kuntu nekkoon na alayhim ci ñoom shahidan di teewe lañ doon def di ko fekke loolu nag la ma ko mayoon mooy lan maa dumtu fihim fe dama faa nekkoon ba ma fa nekkee may wax di xool ku bëgg a def la dul loolu mën la du nii nii la di waññi gaa yi di def ñii di bàyyi ñii topp boobu kat la taxoon ma mën ko mooy dama faa nekk maa dumtu fihim boobu maa ngi fa woon yow yàlla fa lamma tawaffayta nii ba nga ma fa jëlee ba nga ma reyee ñu naan isaa deew kunta anta raqib yow yàlla nag yaa fa nekkoon yaa leen doon garde gis nga dindi na responsabilité bi delloo na ko borom bi tabaraka wa taala ba ma fa nekkee doon naa contrôler parce que maa fa nekkoon ba nga ma fa jëlee yow yaa fa nekkoon nag yaa kooku leer na gis nga mi ngi nii jullit nii lay def jullit da ngay jël mbir yi delloo yàlla waaw waaw waaye jël mbir yi rek jox nit waaw laaj nañ benn kilifa waaw yow kilifa gi mu ne ah ñu ne ko gars yi de fii bu ñu ñëwee du ñu wax mbirum alaxira fii moom mbirum àdduna rek la ñuy wax waaw àdduna rek bëgg nañ ceeb bëgg nañ diwlin bëgg nañ tali bëgg nañ ndox bëgg nañ loolu rek la ñuy wax bëgg nañu bëgg nañu bëgg nañu waaw bëgg nañ suñ dëkk bi ñu defal ñu courant bëgg nga waxal ñu ko lu tax duñu wax alaxira mu ne alaxira rek la nañ ko ba pare ba pare rek la nañ ko ndeysaan allahu akbar ndeysaan alaxira rek la nañ ko ba pare alaxira rek la nañ ko gars yi mënuñoo rek la mbirum àdduna bëgg rek la alaxira ah àddina baa ngi nii jafe-jafe yi dëkk baa ngi nii jafe-jafe yi dul jaax kenn mënu ko rek la ñu ne dañuy rek la alaxira xanaa fooy rek la mooy foo xam boo déggee waajaa ngay rek la dëkk ba dafa xam dëkk ba waaye dëkk boo xam ne mosoo faa dem xamoo fu mu nekk mosoo faa tukki gisoo ku fa jógee ñëw di la ko nettali nga bëgg ne dem nga fa rek lekk bi nga fa demee ci yan ministre nga dem ci yan bureau bu ñu signé la ay papier ana papier yooyu tey boo ñëwoon ne dem naa ambassade États-Unis may nañ ma visa li la gars yi di njëkk a wax mooy lan ah anamu nga dugal loxo sa poste génne ñu ne ah dëgg la de waaye boo ñëwee ne demoon na ambassade ñu may ma visa ñu ne anam nga dafa wadd dugal sa dafa wadd kii moom mën a fenn wala la wax de kon nag mu ba allahu akbar waaw waay yàlla na yàlla woon dëgg waay yow yàlla fa lamma tawaffaytani ba nga ma fa jëlee faatma kunta nga nekk nag anta yow arraqib yaay ki leen doon wattu waaw waaw alayhim ci ñoom yow yaa leen doon wattu wa anta nag yow ala kulli shay'in shahid lépp nag yaa ko seede maanaam delloowaat na yàlla su fekkee démb waxoon naa ay mbir yoo xam ne jaaduwul wala wax naa lu jaadu yow yàlla xam nga yaa koy seede ala kulli shay bàyyiwul dara maa dafa laxas lépp delloo yàlla ala kulli shay lépp lu mu mën a doon yow yàlla shahid yaa ko seede bàyyiwul dara ndeysaan léegi nag xam na ne moom dëgg-dëgg moom amul problème moom xam na ne moom da ciy génn waaw taxawaay bay métti rek laaj yi mooy tar waaye moom xam na ne da ciy génn parce que yàlla xam na yàlla xam na ne moom du ci dara gars yi ñoo débordé ñoo dem ne ko yàlla nga sa yaay yàlla la waaye moom musu leen ko wax léegi nag mu ne yàlla in tuazibhum boo leen mbugalee ah fa innahum naka ñoom ñii de ibaaduka say jaam lañ waaw wa in taxfir lahum boo leen baalee it fa innaka anta al azizul hakim allahu akbar boo leen buggalee say jaam lañ kenn mënu ci dara waaw léegi yàlla bu isaanee yàlla jaam ñi say jaam lañ boo leen buggalee say jaam lañ léegi ñun Sénégal am nañ ñoo xam ne dañ naan yàlla doo fi mbugal kenn leer lan la wax waaw ah yenn saa yi nga gis néew ku faatu ñu dugal la ci ci armeel nga dégg kilifa gi def tànkam def nii noppam ci armée bi ah fan déedéet déedéet aljanna firdaws waaw nañ ko yóbbu fird ah waaw ah waaw waaw ah allahu akbar non loolu te ay théâtre quoi subhana nga dégg nit ñi di yuuxu di yuuxu tt firdaws waay mooy wax mu naan da koy yóbbu ay ay fe ay ile yi naar jan firdaws dam nanu yàlla dimbali ñu defe ne yàlla dina wax defal li dina wax malaaka yi def leen lii benn waaye ne eh eh lu ngeen def ni yéen xoola wax ji ñuy tuumaal Abdul Xaadir Jaylaani daan dafa sone malakal mawti bët di toj danga loolu nga fa ne jaadu na yow yàlla wa in tuazibhum soo leen mbugalee fa innahum ñoom ibaaduka say jaam lañ kenn mënu ci tus ndax say jaam lañ wa in taxfir lahum soo leen jéggalee fa innaka yow anta yow yàlla mi al aziz yaay ki not sa nguur al hakim yaay ki xereñ allahu akbar anta al aziz yaay ki not ci sa nguur kenn mënu cee def lu la neexul waaye lan al hakim yaay ki xereñ lu la neex nga def te loo def ba pare kenn du wax lu tax nga def ko kenn du wax lii de bu nekkoon fii lay gën a rafet loolu mooy baatu hakim hakim mooy koo xam ne su defee dara ba pare kenn du ñëw ni gis ci gis ci lu manqué loolu pour ngeen xam ko rek ku nekk xoolal sa bopp buñ dem asamaan buñ dem suuf buñ dem ci géej gi ku nekk fi nga toog fii ci biir jumaa ji xoolal sa bopp nga xool sa yaram bi sa cër yi la yàlla may benn bu nekk fi mu nekk nga xool ndax neex na la fii la war a nekk wala dañ ko war a dimb dindi remplacer la ko nga wax fuñ koy def aca bismillah na am ku yëkkati loxoom wax na am ku ne man sama bët yi daal vraiment fi ñu nekk neexuma waroon nekk ci sama doq bi kon nit ñi ne la yow da nga dof nga yow lan kii daal leen ataaya yi ñu ne kii wérul soo waxoon sama tànk yi warul nekk fii léegi wax ñu fu muy nekk bismillah bu kenn ne sama bopp bi warul nekk fii léegi wax ñu bopp bi foo bëgg ñu defal la ko bis amul fii ci jàkk ji ku ñu war a changer dara ah man doo di yàlla ni ma nekk baax na xaw ma yéen nag kenn fii ci ñun amul koo xam ne bëgg nañu changer ko dara nopp yi amaana ñu changer ko wala ñu gën koo ngandeel wala bëñ yi ñu guddal ko ba ci jumbax bi loolu mooy xakim nag mooy lu mu def rek noonu la allahu akbar ba mu defee asamaan ci kaw ku xool da ngay xam ne asamaan ci kaw la war a nekk mu def suuf ku xool xam ne suuf suuf la war a nekk mu defar garab yi mu defar bidéew yi mu defar géej yi mu defar doomu aadama kooku mooy hakim lu mu def noonu la allahu akbar même sunu borom daf ñuy wax ne wa fi anfusikum afala tubsirun bu leen ma wuri fenn xool leen seen bopp xoola bakkan bi rek xoolal sunu bakkan yi bokk yi ni ko yàlla defaree ak sunu bëj ah kan moo ko def nii fii génn liy dugg mel nii kan moo xotti sunu gémmiñ ñi kan moo ci def ay tuñ kan moo ci defal ay bëñ kan moo ci def làmmiñ kan sa cër sa yaram yi xoolal wa fi anfusikum allahu akbar afala tubsirun léeg-léeg nga gis nit koo xam ne ni ko yàlla bindee dafa rafet rafet ba bu bi mu la rombee da ngaa gestu naan nii allahu akbar benn xale bu jigéen moom may wax léegi mu ne ma dama nekk ci oto xam naa sama bopp ma génne sama ñaari bët ma muur fii mu ne chauffeur taxi bi mu ne ma dindil sa kaala gi parce que mu ngi may xool ci seetu bi ma ne ko mukk mu ne kon damay dawal oto bi ma daaneel ko ñun ñaar ñëpp ñu dee ndaw si na ko bu la neexee mais sama kanam gi doo ko xool léegi léegi même pas dix minutes xoolal loolu lu tax kooku bëgg loolu ah kon yàlla moo mën a bind yàlla mooy moom moo taar lu mu def lépp lu mu def rek dafa taaru sunu borom nee nañu qaala allah allahu akbar isa jeexal na wax ja qaala laa yàlla ne haza yowmu yanfau saadiqina sidquhum tey mooy bés bi nga xam ne képp ku dëgg woon sa dëggu dina la jëriñ mooy ban bis mooy bésab yowmal qiyaama képp ku dëgg woon nekk ci diine yàlla nekk santaane yàlla toppoon yonent yi wallahi tey mooy sa bis kon mbokk yi nañ leen dëggu yow mu bis la boo xam ne yan fa'u dana jëriñ ñan assaadiqiina ñu dëggu woon ñi jàng ngeen xadis bi lan la leen yàlla di fay ñi nga xam ne seen dëggu sidquhum seen dëggu lan la leen yàlla di fay mu ne lahum am nañ jannaatun ay jardin yoo xam ne tajiri day daw min taxtiha ci suufam al anhaar ay dex ay dex xaalidina fiha abad suñ fa duggee aljanna yooyu dañ fay sax dootuñu génn waaw abadan mooy éternellement aljanna ku fa dugg doo dee dañ fay béel waaw sax duñu génn ñoom ñépp allahu akbar mbokk yi kon lii rek doy na nit dëggu nit dëggu ci li mu nekk dëggul ci sa jaamu yàlla dëggul ci sa dundu diine bul tricher dëggul parce que yàlla nee na tey mooy bés bi nga xam ne ña dëgg woon seen dëgg dana leen jëriñ waaw waaye sa waay tey ni àddina bi mel ni nit ñi yàqoo doo gis mukk dëggu ku nekk yaa ngi xool am amu àdduna am am jaralu la dara soo waxee du dëgg loo def du dëgg booy liggéey du dëgg doo def dëgg lépp ay tappale la waaw lépp ay lijjanti la da ngay dégg ñu ne nañ ko lijjanti lijjanti rek kenn du def dëgg fu ñu jëm buñ demee tey sax ba ñu ñu dëggu néew ci kaw suuf néew bëreetuñu dañ leen di limi ay baaraam wala sax nit ñi dañ leen di daw waaw di leen tuddee ay almaalaak ii kii xamul négocier pourtant noonu la jullit war a mel jullit dafa war a dëggu léegi lañ jàng hadis bi aleykum bisidq yàlla yemul foofu waaye dafa la dafa wax tey mooy bis bi nga xam ne ñi dëggu woon seen dëggu dana leen jëriñ lu tax pour ne dama leen di fay ay aljanna yoo xam ne day daw ci suufam jardin yoo xam ne ci suufam ay ndox moo fa nekk tajri min tahtiha al anhaar yàlla neen dañ fay sax éternellement dootuñu génn dañ fay béel ba pare yemu ci te loolu yàlla dafa ne abadan ba faw gars yi faw kañ la kan moo ñuy wax ana ñuy jàng fii ana mathématiciens yi faw ba faw lañ bëgg ngeen wax ñu faw mooy kañ ndax faw am na fu mu yem kan moo wax lii yàlla moo ne ñi dëggu danaa leen fay fay boo xam ne danañ xéewlu ba faw dootuñu dee yemu ci mu ne radiyallahu anhum man yàlla dama kontaan ci ñoom ma leen a gërëm ma lii rek doy na ndeysaan radiyallahu anhum yàlla gërëm na leen kon dëggu am na solo de yàlla waxul ñi julli waxul ñi doon woor waxul ñi doon aji ñi doon joxe azaka ñi doon dem màkka ñi doon ñi doon ñi doon ñi doon ñan la yàlla wax ñi dëggoon lu tax ndax bu ñu dëggoo rek dëggal yee foo gis ku dëggu day julli foo gis ku dëggu day woor foo gis ku dëgg bu amee day aji foo gis ku dëgg bu amee day génn azaka benn waaye ndeysaan dafa ziyaare yonent bi waa ji ku doyoon waar la di def ay ñaaxum rek bi mu ñëwee yonent bi ne ko man leen dong laa bëgg nga nga def mu ne lan mu ne bàyyil fen mu ne lool rek mu yaakaaroon naa ne bi may ñëw fii danga may tere naan danga may tere danga yonent bi ne ko déedéet déedéet bàyyil fen mu ne loolu de mun naa ko mu ne waaw demal léegi nag waa ji xam nga lu ko dal mu dem ba heure bi mu doon naa ni jot mu bëgg a dem mu ne ah waaw man kat waxoon naa bàyyi naa fen te bu ma génnee fii buñ ma nee foo jëm du ma mën a wax damay naani te kon su ma waxee damay dem feneen fu dul damay naani kon damay fen mu ne kon kon xaar ma toog mu toogaat ba caagu mu jógaat waa jooju foofu la jaar ba dëgg bàyyi fen bàyyi loolu bon loolu mu doon def gis nga nit dafay dëggu ñi dëggu yàlla gërëm na leen radiyallahu anhum yàlla kontaan na ci ñoom mbokk yi tey su ma leen doon jox misaal njiitu réew mi su kontaanoon kenn fii ci ñun kooku lan la ñuy xalaat ci moom ndax kenn mën na maa tontu su sunu président bii tey waxoon kenn fii ci biir jàkka ji kooku kontaan naa ci moom gërëm naa ko la ñuy xalaat ci waa jooju mbokk yi tey gars yi dañ naan diw tekki na ñëpp ay daw këram reer yi en tant que président ne kontaan na ci moom si yow waa ju doon terminé nga gis gars yi ñëw naan ko booy yow terminé allahu akbar waaw léegi nag ku yàlla ne radiyallahu anhu rek kii gërëm naa ko kon nit ñi li ñu war a xalaat ci kooku ndeysaan radiyallahu anhum yàlla ne ñu dëggu ñoom ñëpp gërëm naa leen waaye wa radu anhu waaye ñoom it kontaan nañ ci yàlla gërëm nañ ko ndax yàlla fay na leen allahu akbar yàlla nee na zalika lii alfawzu mooy texe al azim bu mag lii mooy texe texe mooy nga nekk ci santaane yàlla texe mooy nga nekk ci tawxid texe mooy nga bàyyi bidaa bàyyi shirk nekk ci alquran ak sunna texe mooy nga xam li tax yàlla bind la indi la fii ci kaw suuf si yàlla bindu la fi pour caaxaan afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan maa xalaqna samawati wal arda wa ma baynahuma laibin duñ yaakaar ne yàlla daf ñu bind pour foo pour foo déedéet yàlla daf ñu bind pour ñu jaamu ko mu ne lillahi ñel ne yàlla mulku samawat nguurub asamaan wal ard ak nguurub suuf lillahi yàllaay ki moom mulku samawaati nguurug asamaan wal ard ak nguurug suuf koo fi gis mu gouverne bisa nga ñëw ñu folli ko wala mu dee follee ko waaw lu fi buur yàgg yàgg yàgg yàgg day dee wala ñu folli ko lim leen lim leen buur yi lim leen buur yi lim leen président yi lim leen njiit yi dee wala follee ko kon kay doo buur dañ la ko taqaloon rek mu ngoog doo buur yàlla dong moom mooy buur lillahi ñeel na yàlla mulku samawaat guuru asamaan kenn du gouverne kaw asamaan ku dul yàlla wala mës ngeen ko gis ñi gouverne yépp seen gouvernement fu mu yem ci kaw suuf te bu neexee yàlla yàlla folli leen mu ne wama fihinna ak li ci nekk li ci nekk li nekk asamaan ak li nekk suuf yenn saa yi nga dem ci yenn yaa ay yàlla day wax waman fihinna su boobaa looy wax ak ñi ci nekk wama fihinna ak la ca nekk ñaari du benn de waman fihinna ñi am xel la mooy malaaka yeeg nit yi ak ginne yi wa ma fihinna la ca nekk ah ak mooy lan biddéew yeeg ndox meeg suuf seeg jant ak weer ak lépp ci biir wa ma fihinna ak la ca nekk sunu borom ne ci loolu la ca nekk lan la min sa'iril maxluqaat ci mboolem mbindeef yi wal kainaat ak ndunduteef yi xalqan wa milkan wa tasarrufan yàllaa ko moom moom moom mbindeef yi moom moom nit ñi moom moom jinne yi moom moom malaaka yi moom moom rab yi moom moom ndunduteef yeneen yi ci nekk jalla jalaaluhu lu ko ci neex mu def te la mu ci def kenn du ko ne lu tax nga def laa yusal amma yafal wa hum yusalun te ñun lu ñu def ëllëg ñu poñe ñu laaj ñu isaa ngi nii léegi léegi ci lu ñu romb yàlla taxawal ko di ko laaj sunu borom nee na jalla jalaaluhu mu ne wa huwa moom yàlla ala kulli shay'in qadir wa huwa moom yàlla ala kulli shay'in ci lépp lu mu mën a doon moom yàlla qadirun mën na ko waaw dafa bokk sa pas-pas nga gëm ne yàlla lépp la mën saa yoo gëmee ne yàlla am na lu mu tële sa pas-pas baaxul sa pas-pas wérul mbokk yi yàlla mooy ki mën lépp ala kulli shay'in qadir lépp mën na ko tëlewul dara waaw yuxriju lxayi min almayit wa yuxriju lmayit min alxay wa yarzuqu man yasa bi gayri xisaab waaw yàlla lépp la mën loolu dafa bokk ci sa pas-pas kon doomu ndey yi ci tënk bu gaaw bu gàtt sunu borom a ngoog laa yajizuhu shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiun alim dara tëwu ko ci asamaan ak ci suuf yàlla amul lu ko të waaw yàlla amul lu mënut ci asamaan yi wala ci suuf dara tëwu ko fi lu ko neex mu def mooy aji dégg ji mooy borom xam-xam bi lii moo doon sunu dars tey ñu jeexale ko saar almaida di jéggalu sunu borom jalla jalaaluhu njuumte yi ñu def ci saar bi ak yeneen yi ko jiitu incha allah ci kàttanu yàlla samedi bii di ñëw ñoo ñu jël suratul an'am bi iznillahi tabaraka wa taala moom it ñu ñaan yàlla mu may nu nu fekke ko comme tey num nu mayee ñu jeexal ci kattanam ak mën-mënam suura almaida assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa yakku fekkee am na ay laaj incha allah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته